la la la la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 Touba Monde bi seen mbokkum taalibe Ibrahima Fall mbay ci micro bi feggoo ci xarale gi ci Mbaye Fall euh, ñu baax a àndoog yéen ci seen émission yoor yooru Touba di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaan ci àddina si ñi tëdd ci lopitaan yi sunu borom yëkkati leen ban dellu ci seeni sago ñi ne ciy tiis ñu teggal leen ko bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, di ñaanal alxalifatul amali tarixatul muridiya Cheikh Sidul Muxtaar mu yàgg fi loolu te ànd ak wér niki noonu lan koy ñaanale sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal nag mboolem jullit yépp waaye mën a nekk ci àdduna si yépp yàlla nu yàlla defal jàmm te yàlla defal nu ak booloo yàlla defal nu tàppi xol yi ba lépp nekk benn ndax loolu day moom la yàlla bëgg te moom la digle moom la yonent bi sallallahu alayhi wa digle moom la cheikhul xadim xaadimu rasul kii fi nekk di suñu yaakaar teeg adal cheikh Sidil Muxtaar yàlla na yàlla guddal fanam yàggal ko fi yitteem yëpp mooy jaam yëpp ànd nekk benn ndax ñoo bokk alkaabatul musharafa muy kaaba gii nga xam ni ca la ñuy aji boo fa demee doo xàmmee ku bokk fii wala ku bokk fële ñëpp ñooy àndandoo jël benn yoon wi muy àndandoo ànd wu rafet faatixatul kitaab ñoo ko bokk kenn amul loo xam ni mën nga ko ca jël di bàyyi sa moroom euh, salawaatul xamsi muy julli juróom ko bokk kenn amul loo ci mën a jël di bàyyi sa moroom azakaat mooy asaka kazalika na ko noonu kon booloo googu nga xam ni moom Cheikh Sidul Muxtaar digle na ko sëriñ Tuubaa waxoon na ko bu yàgg mag ñu baax ñu waxoon nañ ko bu yàgg yonent bi sallallaahu alayhi digle woon na ko kon ay julit fu nu nekk ngir ñu mën a àndandoo nekk benn si waxtasimu bi xablillahi an boobu wala tafarraqu loolu kon kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah ci nga bokk kon loolu woote la boo xam ni euh, mi ngi koy woote waaye ñëpp la ko wooteel islaam garab la bokk yi euh, am na ay branche branche yi mu ngi ci garab gi xobi yi mi ngi ci garab gi doom yi meññ ñi ngi ci garab gi kon kenn mënul ni damay lekk ci garab gi ba noppi di ci féexlu waaye ba noppi di ñaan yàlla garab gi daanu wala mu faatu kon mu ngi mel ni maam Abdou Aziz Dabakh ni mu ko daan waxee ku nekk ci gaal gaal gi dem ba ci diggu géej gi bul ñaan yàlla na mucc da naan yàlla na géej gaal gi mucc bu ko defee ñëpp àndandoo mucc kon ab jullit fu mu nekk day yéene mbokkum jullitam jàmm euh, te kenn ku ci nekkit li nga gëm nga gëm ko te muy dëgg ci yow te bul jingat yëfi jàmbur kenn ku ci nekk nag xam na ku mën sa waajur waaye nag da ko dul nangu kon kenn ku ci nekk fa nga féete la nga moom. nang ca bay sawar te mu doy la sëkk te bokk yi kenn ku ci nekk tamit nanu bàyyi di wuññalante ay awra ndax di dugg ci domaine jàmbur loolu du yoon te rafetul te islaam rafetlu ko yonent bi nee na képp ku suturaal nit ci àdduna yàlla dana la sitral bu sutura jafe kon nit boo ko xamalee ayib boo ko ci munta yedd na nga téye sa làmmiñ noppi waaye di dugg ci ay yëfi jàmbur wala gis nit muy def nangam ak nangam bala ngaa am jàmm da ngaa dem ca média ba ba wax ko bala ngaa am jàmm da nga koo filmer ba tasaare ay mbiram bala nga am jàmm da nga koo toroxal loolu bari na ci àdduna bi te it bokk yi képp koo xam ni yaa ngi yee fitna yonente bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla rëbb na la laana allahu al fitnatu naimatun laana allahu man ayqadaha yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee te it ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bunt jëlee kenn muy abu bakrin siddiq mi nga xam ni moom moo njëkk a jox boppam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci bi jox ko ko jafee mu ànd ak moom doon commerçant bu mag doon ku ñu respecté ku jox cër moom bi mu duggee ci islaam rek immédiatement immédiatement moom Abu Bakrin Saddiq ñeneen ñi nga xamee ne si danoo nekk ci islaam danoo gaawantu ne ah, ginnaaw nag ku mel nii dugg na ci islaam danañ dem nag laaj ko ba xam nee looloo taxoon Seydina Abu Bakrin bari nañu dugg ci islaam ñoo xam ne si moom moo leen convaincre indi leen ki ni wax Ousmane ibnu Abdul ibnu Abdul Affan ibnu Affan wa huwa allazi moom mi nga xamee ne si teen boobu ñuy wax biiru ruumata moom moo ko jëndoon bi'nu ruumata ab teen la woon bu nekkoon ci Madinatul Munawwara moom moo ko jëndoon moom Seydina Ousmane def ko waqfan lillaahi sarax ko jullit ñi kenn dootul fay ndox mu ngi mel ni Sénégal rek nga ni Sones kenn dootul fay ndox mu mel ni Touba gis ngeen kenn du fay ndox waaye mu mel ni dakaar rek nga ni Sones daal jënd naa ko weer wu dee wu nekk kenn bu kenn jël facture facture yëpp ñu daal la ko dajaleel jox la ko nga daat koy fay Seydina Ousmane noonu defoon benn teen bu ñuy wax bi'nu ruumata kooku Seydina Aboubacar Saddiq moom moo ko convaincre loon ba mu tàbb ci islaam xasutu Tabuk joxe na xaalis bu bari moom Seydina Ousmane waaw joxe ba yonent bi sallallahu alayhi sallam di ko ñaanal naan yow yàlla yàlla na nga jéggal Seydina Ousmane mii ndax jëf ju rëy yi mu def ci xare bii ak lu rëy li mu def ci islaam kooku li muy màgg màgg màgg ak li muy am am alal ki ko convaincre ba ko dugal ci moom mooy Aboubacar Saddiq mi nga xam ni. nit ku amoon classe la kun fonkoon la te it kun respecté woon la te it commerçant yëpp dañ koo wóolu woon di ko jànk seen alal kooku moo njëkk jox jox boppam Seydina Muhammadu Rasulullahi ci ñi nga xam ni danoo âgé nekk ay mag ba noppi am dignité ba noppi nit ñi respecté leen. ñu teg te ku ñuy wax Zubair ibn Awam kooku taarix islam dafa ne awwalu rajulin salla sayfahu fi islaam mooy ki njëkk bocc jaaseem di xeex ci islaam xeex ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jaarale ci duggam ci islaam Abubakrin Sadiq moo ko convaincre indi ko ci sayyidina Muhammad rasulullah mu sukk ñaari bët omam tàllal loxoom ni ko aslamtu nafsi ku ñuy wax Abdurahman ibn Awf ummuhu mooy shifaa te it xam ngeen ni yaayam jooju bokkoon na ci ñi rewle woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy gën a jamono doon commerçant bu mag moom abdurahman ibnu awf moomu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ubbi dëkk boobu ñuy wax euh, dawmatu jëndal moom la waxoon ni ko boo demee ba gar gañ xare ba takkal doomu buur ba moo am ca doom ju baax ju dégg diine nga gis ni kooku mi ngi bokk ci bani këlëb kooku mu ngi faatoo ci Madina mën a warra ñu denc ko ci Baqiya dugg na ci islaam ci loxo Seydina Abu Bakrin Sadiq nga xam ni kon Abu Bakrin yàgg naa def ndam ci islaam ak diine saadu ibnu abi waqaas moom mi nga xam ne moom mooy ibnu hamduna wa kaana maa al muasharati mubasharat bil janna bokk na ci fukk ñi nga xam ne si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim na leen ñi leen yéen bu ëllëg yowmal qiyaamee balaa yàlla dugal kenn àjjana dina leen resevoir yéen fukk yi wax ak yéen sant leen gërëm leen doog a woo nit ñu tàbbi àjjana jëmm jooju ñuy wax saadu ibnu abi waqaas kooku yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi jaarale ci duggam ci islaam ci loxoog sayduna abu bakrin saddiq te kooku bokkoon na ci nga xamee si ñaanam dafa gaawoon bi suñu borom sallallahu alayhi dafa doon moom wa huwa asrawul ijaaba wa kaana mustajaaba ñaanam kenn daaw ko delloo tafaatu na nag ci xilaafatu muawiya ibnu abi sufyaan ci la faatu moom saadu bi abi waqaas dugg na ci islaam ci loxo sayduna abu bakrin saddiq talxata wa kaana kunetu aba muhammad wa aqihi fi l madina kaabatu ibnu zuhe malik nee na ñi mu seexale woon ci madinatu munawwara bokk na ca seexam boobu di kaabatu ibnu malik tuufiya yowmal jamal xeex boobu nga xam ne moo nekkoon ci yowmal jabal ci la faatu nee na nag kooku bokkoon na ñi nga xamee ni si dugg nañ ci islaam ci loxo abubakrin saddiq mi nga xam ni moo ko convaincre ba indi ko ci islaam te alxuraan kat dafa wax ni alam yaani alladina amanu an taxshan xulubuhum li dikrillahi wa ma andala min alxaqi wala yakunu kalladina utul kitaaba min qabl fa taala alayhim al amal fa qassat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun mu ni ñi nga xam ni dañuy xeex wala ñuy reyante wala ñuy yàqante der xanaa jotul nag seen xol yi yëngutu ndax islaam ak diine bokk yi mu mel ni ab jullit war naa dem sax ba yaramam daw mu am yëg-yëg ni man mii kat li may def ci safaan wala diggante yi may jaxase wala ñii may dogug mbokk wala ñii may yàq wala ñii may suufeel wala may ñi nga xam ne si maa ngi leen def naka sul noonu jot na ma ëlbatiku nag dellu siwaat xool sama bopp nattaat sama bopp xam ni lii may def du noonu ma dellu si sama xel waajaat bu baax a baax xam ni islaam yoon wu sell la yoonu diine wu rafet la mu ne kon ñooñu de jot na ci ñoom ñu wëlbatiku seen xol yi ci tudd yàlla gi ñuy tudd yàlla ndax alaa bi dikrillahi tatma'innul xulub xanaa tudd yàlla wóoruta dalal nit ak xolam waaye wallahi alazim danga gis oto bu ñu bind wallahu ya'simuka minan naas mu nu tëll mbëkk beneen oto wala mu dal ci garab yow yàlla na la yàlla aar ci nit ñi léegi xoolal ba xam la alxuraan ji wax moo amul wala nit ñoo jëful lan war a def yow yaa ngi ñaan mucc ci nit ñi ba bind ko ci sa oto ëlbati ko oto ba mbëkk kenn wala mu mbëkk garab wala mu jékki-jékki këpp mbokk yi kon nanu delloo suñu xel ci yàlla bu baax a baax tey jëf lu baax te nekk ci ak njub loolu rek moo am solo bu ëllëgee du jariñ dara am na ku ma sa ñëw ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ni ko Mbàkke dama bëggoon nga ñaanal ma ma am mujj gu rafet ma ne ko mujj gu rafet ma ne ko mujj gu rafet da baax na waaye mujje ci lu rafet moo am solo ma ne ko ndax xam nga ko wax xam ma ne ko dégg naa turam de ma ne ko kooku dey ak mujjam day rafetul ndax baay tax la ci yonent bi salaahu sallam Uhud la faatu ba xare ba jàllee yéeféeri jaar foofu xar dënn ba jël xol ba ndax la mu defoon seen baay ñuy fay ci moom ngir xol bu naqari nee na ka nga xam ne si moo ko defoon jëf ju ñaaw jooju boo ko yonte bi tiimee bi rangoo ñoom laa lay dënnam Seydina Jibril def ni ko moo ne day ki def jëf ñaaw ji du dem sawara de mu ne ko lu tax ak li mu def sama baay tax bii mu ne ko ba mu jëlee res di ko màtt ngir bañ ko toq deret daa tàbbi ci biiram te jaxasoo ak moom ba pare nee na loolu mënu koo lakkaaleeg xam Hamza xoolal loolu nga xam ne kon ñooñu amoon nañ wàccuwaay bu mag euh, yonent bi salaahu salaam dafa fonkoon mbokk fonkoon mbokk googu mu fonkoon mbokk mas naa jël ñaari doomam euh, may ko ay doomi abi jahlin muy atib ak ba kii ne ku mu mayoon ko zeynab kenn ku mu mayoon ko roqya waaye bi mu leen mayee ba noppi tabati yaddaa daa wàcc bi tabati yaddaa wàccee seen papa woo seen yaay ni leen Muhammad de yàllaam ji daf may xas ba yow xasaa nga la léegi damaa bëggoon nga woo xale yi ñu fasex ñi nga xam ne si doomi Muhammad yi la xam ngeen ni Zeynab mooy taawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ni Xaasim waaye li gën wéer Zeynab mooy taawu Muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ne loolu am na fase na leen ñu fase xale yi mais yàlla dogal na jotewuñu woon kon tëdduñu ci lal euh, yonent bi nee na loolu dama ko defoon ngir dëggal ak mbokk moo taxoon mu jël doomam yooyu may kenn ki atib ak utayba di doomu abu jahlin umu jamil di seen yaay mu def ko ngir ak mbokk xoolal ci mbokk rek ak ci baax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan mi nga xam ni moo dencoon doomam ju tedd jooju du ruqya bi mu faatee mu jëlaat keneen ki dolli ca jox ko mu faatuwaat xoolal li mu def daf ne ko bu fa keneen desoon ca kër ga ca armeel la ko waxe dinaa la ko joxaat kooku xam nga ni dàq na lu bari tey ji Sénégal koo may sa doom mu faatu doo ko dolli keneen danga naa ah, kooku moom mbaa ay ay gaaful ak yeneen ak yeneen loolu doon ko gis si jigéen ñi fi mu toll nii ku ci am sa borom kër bu faatu ñu fexe ba nga am borom kër bu faatuwaatee de bay ba nga xam ni moom sëy jeex na ci yow xanaa nga dem fu la xamewul loolu mooy gaaf yi nga xamee ne si wala Sénégal yi nga xam dañ koy jël di ko gaafal nit ba tax sax dem na ba nu jékki-jékki jël nit di ko tam dëmm yooyu yëpp ay waxin la yoo xam ne si Sénégal ñoom mel noonu. fi mu toll nii danoo nekk ay nit yoo si danoo dem ba gëm yàlla gi dafa jeex tàkk ci doomu aadama dafa wër nag àdduna nga dem ba nga xam si kenn ku ci nekk gëmatoo yàlla ci looy def ci looy wax yaa ngi cay seet noo ca ame wala noo ca gañee lu ko moy rek yow yaa ngi xool yow sa mbir na muy doxe loolu nag nekkul woon ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la bëgg woon ak mbokk xoolal doomam yi nga xam ni ay ñu tëdd lan kuy sa baay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moo ko gën a rëy ki nga xam ni lu yàlla bind moo ci gën bu ëllëgee ñi ngi kerloo ci keru Seydina Muhammad bu ëllëgee mi ngi tàbbal ñépp ci àjjana balaa kenn dem yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom moom lay woo mu ñëw bu ñëwee ba noppi mu ne ko kun la tudde ana say doom ana say soxna ñu dajale leen ba noppi mu ne ko kun la mos a tudde yonent bi ne koo mu xam dañ la mos a tudde Muhammad waxuma nag koo xam dañ la tudde Muhammad ñu naan wala moo doo dugg de kon tur yi nga xam ni bi sal ismi fusuq baada al iman alquran moo ko wax ijtanibu kasiran min adanni inna baada danni ismun wala tatajassasu wala yaxtab baadukum baadan ay yuxiba ahadukum an yakula laxma ak mayitan fakaratumu bari leen bàyyi leen ñaaw njort yi ijtanibu kasiran min adanni ana ñaaw njort mooy lan ñaari nit di waxtaan ngay ñëw ñu noppi nga ne ah sama gars yi ci man la nekk de ñii xam naa man la ni waxal lan moo la ci leer yonent bi tere na ñaar walla ñett taxaw di waxtaan jékki-jékki kenn beddee ko ca daadi di woote kenn ki ne ko waaye sa waay ma gis la waay nee na loolu ci mbaadoo la la bokk ay ñett bu ñu toogee bu fekkee li ngay wax mënoo ko généraliser bàyyil ba ngeen jóge ci jataay ba waaye toog ak ñetti nit nga jékki jekk woo kenn ku baax waaye ma gis la waay bàyyi fa keneen nee na loolu ci mbaadoolo la bokk yenn ñaaw njort yi alquran moo ko tere inna baada zanni ismun nee na yenn ñaaw njort yi bàkkaar la wala sa jëssasu nag bu kenn yëddu yëddu mooy lan am ñuy wax fee nga bëgg a xam li ñu wax ngay tàbbal sa baat wala ngay romb romb lu di xool di dégluwaale wala ngay jékki-jékki ni daga ci seen biir di leen bett te xool ba xam li ñu def wala ñuy wax yooyu mooy jaasuus islaam da koo tere te dafa ñaaw te ñun dañu mën yooyu trop yooyu nag moo nuy sànq mooy yàq suñu jëf mooy tax suñu mbir di lëndëm nanu moytu yi nga xamee ni si yàlla da koy tere wala yaxtab baadukum baxdan bu kenn yàq sa deru moroom bokk yi ñaata la yoon la yàq der par bis toog ci diw ana diw moom da mi ngi bërëb sàngam ana diw jékki-jékki gis yàlla nakkal ko mu am àdduna la mu wàcc ñu ne moom waaye moom lu muy def ah ñu ne moom de ay mbiram leerul dara leerul ci de moom moom moom ndax sax moom diw moom àndaloon naxu ko ba jël alalam ba diw sax moom def nangam ak nangam tam sax ñu jiiñ la loo xam sax xamoo ko te dara leeru la ci te nee na loolu ku ko def yàlla nee na mi ngi mel ni nga toog ak sa mbokkum jullit dara jotu ko yow dara jotu la nga jël fourne teg ci wetam jël gi teg ci bàyyi ba mu bax nga dagg ci poojam wala ci yaramam teg ci taal bi mu lay xool nga koy xool nga koy lekk loolu sim ngeen ko am na nag ñoo xam si ci la nekk dëkk di jëw rek yàq der rek wax lu xamul di dugg ci ay débat yoo xam si dara leeru lañ ci bokk yi nañ delloo suñu xel ay jullit lan te doonoo wax ni ginnaaw bi nekk ay jullit di taalibe sëriñ Touba kon war na noon nekk exemplaire bu mag di ko joxe waaye fi ñu toll nii jataay yi foo ci demee tey jii fi ñu toll nii moo xam ci màggal yi la moo xam ci daje yi il faut ñu am lu luñ fa jële waa gis ngeen diw ban toogee lan def ak gis ngeen wax nga fa wax tey yow buñ toogee ci mbooloo mi wax nga war a jël kàddu doo jël kàddu li nga war a kaas doo ko kaas waaye boo demee ci kër gi mooy gars yi leen wax ànduma ci man boo ci àndul nga noppi lépp loo xam ne si war nga ko faa waxoo ko ca mbooloo ma kon boo génnee loo ci wax naa fekk pire ngi noonu bari na ci nit ñi ay ñoo xam si yow xam nga diw nan laa waroon jox kàddu da ngaa waroon a wax nanga wut na ko woon a wax nit ku baax day xool lu defar mu koy def waaye loo xam ne day yàq mbooloo wala day yàq diggante day tax nit ñi di juyaloo ak di féewaloo képp ku koy def yàlla nee na yaa ngi yee fitna te fitna mi ngi nelaw te koy def ku nekk yàlla rëbb na la kon de ñu yàlla rëbb bari na ndax daje yi léegi yi xew dañ ko doon def ngir yàlla ngir sàkku ci ngërëmal yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa waaye ñu dem ba nga xam ne ay noonoo rek ci xew ñii di xeex fii ñii di xuloo fii ñi di xëccoo poste waaye damaa defe ni place ku koy xëccoo yàlla taxatul xanaa bu fekkee yàlla taxa yónte bi sëñ Tuubaa ñun la kaay liggéeyal fii yàlla kaay toog fii liggéeyal fii yàlla ñu dem bu mujj ak ñu xam ne yow mii gone yaa ngi ñëw te dañoo bëgg ñu am Pastef ñu bëgg leen teg yow nga ne doo génn mais sëñ bi loo bëgg walla yow la fa doon def xanaa yàlla taxul sëñ bi nan ragal yàlla mbir suñu boroom kenn du ci caaxaan te mbirum sëñ Tuubaa dafa weex tal da ko wax moom sëñ Tuubaa dafa ne wallaytu ani wi wal lëhwi mudbiran lillahi bil qur'ani nihmal manzuli po ak caaxaan sëñ Tuubaa nee na yàllaa ko tere yonent bi bëgg ko képp ku ci nekk di ma tuddoo yaa ma tuddoo waaye bokkoo ci man sëriñ Tuubaa mënoo ànd ak moom ba noppi bu jàngee wootee nga fitasu bu sabar ga ubbee nga tàccu dem ca biir mënta ne ba mu ngi dem sax ba ci biir nit ñi fi mu toll nii am na ñoo xam ne si barke Cheikhul Khadim déglu xasida sëriñ Tuubaa yi déglu musique leen ko gënal amul waaye buñ xamul ci waykat yi teewlu seen kër pour déglu xasida déglu mu musique mel ko gën a te nga ne taalibe Sëñ Tuubaa doon murit te am loo xam si day xoos sa xol li di loolu ak leer ba noppi di la jegale suñu borom kon mi ngi mel ni àjjana day jaay nit ñi lànk duñ jënd sawara di maye sawara di jaay ñëpp di ko jënd àjjana di maye jàkka yaa ngi nii kenn du fay jàng yaa ngi nii boo fa demee kenn du la wax parce entré nangam cole dara yaa ngi fi ak show yi ak yeneen ak yeneen yi fi xew te day fees dell te ña fay dem dooni ñëpp ay yéeféer lan te genn wàll gi yëpp ay nit ñu baax lan ay doom yu baax lan fu baax lan mbokk te ku ci wax mu naa man damaa gëm sëntubaa tubaa sëñ tubaa mooy sama sëñ tubaa du ay caaxaan kenn du ko caaxaane ku am say caaxaan wala ngay foo nga dem foowee ko fële te nu bàyyi sëriñ bi ak li nu wax dañ cee war a jug nag jug gu mat sëkk kuy way say way ni man Serigne Touba laa gëm taalibeem laa nangam ak nangam ba noppi def ay caaxaan loolu mooy lan sëriñ bi gëmul loolu da koo tere waaw am na ko mës ñëw ci moom ci njaareem wax ko loolu ni man fëw ma te kooku lu mu doon def ab jàngkat xasida la di jàng ba noppi jël kaan bi mu yoroon bu jàng naan yaa man ajaba man istajaba habli ijaba fii sanni daa yi di jël kaan bi di ci dóor jaar baaraam bi bi mu paree sëñ bu mag bi da ko woo ni ko man fawuma falawuma yow nga dajale ay nit ñu fanaanee mooy yàlla ba suba nga dajale ay nit ñuy bàyyi seeni jëmm ci noonu nga dajale ay nit ñuy def naka sulul noonu ni dañuy tuddoo sëriñ bi ah responsabilité bi yaa ko gàddu waaye bu ëllëgee di nga xam ni sëriñ bu mat boo xamee ni si moom yàlla dafa def ci moom lépp te dara matul manqué wul kon képp koo xam ne tuddoo sëñ bi ak léegi li xew nga xamee ne si phénomène bi nga xam dafa xew léegi foo tourné rek ñu ni diw ab seex la seex yi takkar naa ci réew mi fu nekk taxaw nan delloo suñu xel te xam ni la fa nekkoon du fi mës a jóge sëñ tubaa du ñaar du ñett kenn la te ku wóotu sëñ tubaa sëñ tubaa mat sëkk nga say siinu muxtaar mii ba muy doog a toog xalifa sëñ tubaa dafa ni maa ngi sant yàlla ngeen sant leme ko mi nga xam ne sëñ tubaa mi tazilu ma shabata lil mushaffa'i sëñ Tuubaa ko waxoon bu yàgg aghnaa yamini an azanu midfa'i doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ko fi toogal da nga koy mën sëkk mbërum sëriñ tubaa kenn mëneesu ko daan ngir ma ngay takk ndombaam fa peyu diwaan ku doon sëriñ Tuubaa da nga koy mën sëkk nanu jàppante te yàlla tax tanu dellu si ginnaaw te xam ni bew bare na fi trop am na ñoo xam ne si tey jii bu ëllëg bërki démboo njaay tekkuñ woon dara tey jii ñu ngi dund ci sëriñ bi di ci am lu ne waaye delloowuñu njukkal sëriñ bi delloo njukkal sëriñ bi nag mooy li mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko bàyyi naafiq gi ak jaxase bi ak wax su dul nag su dul noonu te nu yàlla tax te jàppalante tey déglu li nga xam si mooy ndigali yàlla yi lépp loo xam si sëriñ bi digle na ko fun ci waaye mën a nekk nañ ci bu baax te ànd te yàlla tax te jàppante bu baax. digal suñu njaboot ak njub ba noppi ñun ñu nekk ca looy digal sax njaboot danga cay nekk booy def lu baax danga nga ciy jiitu bul digle sanguro doo sangu nanu ànd te yàlla tax te jàppante te nu xam ni lii ab soññee la boo xam ne si dañ ko njëkk ci suñu bopp mu tàbbi ndax danoo gis ni que maanaam il faut ñu toog waxtaan bokkaat li nga xam ne dañ ko bokk lii kenn mënu koo séddoo lu nu bokk la lu rëy loo xam ni Euh, ndam la loo xamee ne si ndamal sëriñ bi muy ndono loo xamee ne si sëriñ bi da ko fee bàyyi waaye dafa bëgg ñu roog roog rooganti ko bu baax ñu fonkat ko bu baax ñu doyloo ko bu baax a baax ñu ànd ci àndin wu rafet woo xamee ne si kenn ku ci nekk da nga jàpp li nga jàpp da ko téye téye nu rafet ba lépp loo xam si war nañ la ko ci laaj rek bu la ko ci laajee nga joxe ko joxe nu mag ah bi muy dem ci géej gi de moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul ba mu wooyee maam Cerno Ibra Faati mi nga xam ne mooy rakkam di boroom ndombal baat ga borom boyteeg maqaama dénk ko sëñ Mouhamadul Fadal Mbàkke ak sëriñ Fallu ak sëñ Modou mustafa ak sëñ Massamba ak ñi nga xam si ñoom la nekk lool ñoom moom day ku baax kooku di borom daru da leen sàmmoon sàmm goo xam si da doon ñaan suñu boroom ni bu fekkee ne dara na na cee yàqu wala kenn nar fay wut na doon sama njaboot waaye lu sëñ Tuubaa lii bu fi dara jóge sëñ bi xoolal googu gëm xoolal googu dëggu xoolal googu jeex gi nga xam ne si rakkam jooju da ko def muy maam Thierno Biré Fati kon nanu am kóllëre nanuy dëggu ci sunuy jëf képp koo xam ne fi gaale ak ñun nanu fexe buñ ko wor te wor mooy li nga xam ne moo fi gën a bari bokk yi ñu koy def nañ ko bàyyi te xam ni du may nit dara dalay yàqal loo xam ne si doo njariñ àdduna dootu xam àllaaxira kon yàlla nu yàlla defal ak jub defal nu ak ngor defal nu ak dëggu defal nu ak taalibe defal nu ak doylu nag ba nga xamee ne si dara du fees suñu bët loolu sëriñ bi te damaa defe ni ku am sëñ Tuubaa ñàkkoo dara crise yi ñuy tudd ak xew-xew yi ñuy wax nii yëpp ay nangam ak nangam falitoo falitoo ku ñàkk sëñ Tuubaa falitoo nga ku dem nag ba sëñ bi génn la yow yow na nga xam ne yow ba nga xam ne yow bokkutoo bekkit nga sëriñ bi moom moom yoonam bi génnewul kenn waaye kuy dox mu ànd ak yow waaye booy toog kenn du la téye kenn du la woo danay dem suñu yoon bàyyi fi yoon wi mooy yoon woowu mu yoonu dëgg woo xam ni si amul taxawaalu amul tendeefal amul lenn nag sul noonu kon yàlla nu yàlla defal dégg ak topp defal Cheikh Sidou Mokhtar mu yàgg fi loolu te wér ñi ngi sant mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy suñu jëwriñ ci liggéey bi euh, di ci jiital sëñ Mahmoudane mi nga xam ni mooy sëtu Serigne Touba di sëtu maam Thierno Ibrahima Fati di xam ne Mbacke Balla sa taxawaay nii rek la mën a sa maam Thierno Ibrahima Fati moom mi bi bu boo xam ne ñu ni kii mooy Modou Mbacke ñu ni moom mooy Thierno rakk Serigne Touba la kooku yow Mbacke soo taxawee lii dafay sedd xolu taalibe yëpp kon dañ lay ñaanal suñu borom guddal sa fan bu baax a baax di ziare bu baax Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil ci taxawaay bu rafet bi moom tamit mi ngi ci jàpp di sant bu baax sëñ Thiam Baye Fall sëñ Ablaye Diop sëñ Mbargu jóob ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñoom it seen taxawaay rafet na ak bokk yi nekk Grèce ak ñi nekk France ak ñi nekk Maroc ak Algérie ak ñi nga xam si ñëpp dañuy teewlu rajo bi ñu ci def émission boo limee da ngay juum duñ leen fàtte duñ bàyyi kenn ak ñi nga xam ne ñoo koy taxaw ci Sénégal suñu Modou Assane Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax a baax di rafet lu taxawaayam kon mbokk yi seen mbokkum taalibe Ibrahima Fall mbay moo nekkoon ci waxukaay gi Eh, di leen ziare bu baax maa ngi ziare bokk yëpp di xamal ne tamit liggéey bi liggéey la boo xamee ne si liggéeyal sëñ Touba la ñu ngi tàllal loxo nag képp koo xam ne am nga ci xalaat bu rafet ndax liggéeyal sëñ Touba bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp a bëgg mu rafet bëgg mu baax ku ci am xalaat bu rafet boo mën a joxe ñu ngi lay tàllal suñu loxo nga jox na ko bu ko defee bu soob yàlla ñu def ko ni ngeen ko bëggee nu mu gën a baaxee eh, allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu du kaan fi nu waaqi ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى شنيع مستمسكين بغياس أحمد خير الأنام منتهى ومبتدى من خالها في الذم الوباء أمنه الله من البلاء بارك الشيخ مسامبا بارك الشيخ مسامبا بارك الشيخ مسامبك